Mamadou na ñu ngi lay nuyu. yow yaay euh, njiital conseil sénégalais de chargeurs euh, di euh, COSEC am nañu mbégte dalal ci matinalu réew mi Sénégal am na ñaari weer boobaak léegi mi ngi dund ak coronavirus mu am njeexital nag ci wàll yu bari ci koom-koomu réew mi lu ñeel chargeurs yi lan la ñu mun a jàpp ci njeexitalu coronavirus bi. waaw dama di gëm yéen di wax ne effectivement chargeur moom bu koy wax mooy kii def import export. te coronavirus bi defe naa ne gannaaw mbiru wér gi yaram ak mbiru koom-koom eh, li mu gën a laal bokk na ci eh, maanaam jëndant jëndante beeg jaayante bi am ci diggante réew yi ci àdduna bi eh, tey ji organisation bi nga ne xamante moo yor loolu ci àdduna bi sax ñu tuddee ko organisation mondiale du commerce nee na sax loolu dina wàññeeku wàññeeku boo xamante ne mën na sax dem ba toll ci bu doon ñetti xaaj mu jege benn xaaj bi Euh, donc te loolu dafa tekki ne képp ku doon yëngu ci import export bokk nga ci secteur yi nga xamante ne mbir mi laal na la ndax jënd marchandise bitim réew xëj na du jar nga déplacé wu waaye bateau yi daan dem di jëli marchandise yooyu également euh, ñu ngi dem ba léegi euh, dëgg la mais dematuñu ci même condition yi ndax buñ demee ci dëkk yooyu aussi liggéey bi na mu daan demee demeewu ko noonu kon laal na secteur yëpp rawatina secteur bi nga xamante ne conseil sénégalais des chargeurs mën naa ne moo ko moo moo njaboote euh, euh, chargeurs yi nga xamante ne ñu ngi léegi di opérateur économique yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci loolu. Euh, ci ñaata la ñu mun a xayma dégâts yi nga xam ne coronavirus def na ko ci chargeurs yi ci wàllu koom-koom bi bien sûr. waaw xayma bi dina jafe léegi léegi ndax déjà corona bi sax tànk xamoo sax lu visibilité bu leer ndax ci kañ la fiy jógee doo mën a joxe chiffre bu leer. mais mën nañ jàpp ne rek bon déjà ah, ñu koy sentir ci ci ci ci activité bi euh, li ci euh, mën naa ne vingt pour cent presque commencé na ci wàññeeku euh, waaye li ëpp solo rek mooy ñu jàpp ne mën na dem ba egg ci trente deux pour cent ci ci wàññeeku ci jëndante beeg jaayante bi ci àdduna bi te loolu aussi Sénégal du ci mucc ndax Sénégal dëkk la boo xamante ne bu ñu fàtte ne bu Afrique amoon bakken Sénégal mooy bakkenu Afrique ndax moo gën a sori. ci dëkku Afrique yi ci Atlantique bi donc dañu am port am aéroport am ay di di di jokkaloo dëkk yu bëri am na marché yu bëri yu dem sax ci Afrique tey wàcc fii Sénégal jaar ci tali bi dem comme ay Mali ay yeneen dëkk yi kon tey ji nañ jàpp ne euh, dina laal na Sénégal te commencé na ko laal waaye nag tekkiwul ne liggéey amatul c'est-à-dire que port yaa ngi fonctionné euh, acteurs yi ñu ngi importé ñu ngi def commerce électronique di bind di échange documentaire yi te loolu sax ñun COSEC déjà anticipé woon nañ ci ndax balaa crise bi di ñëw ñëpp ñu liggéey ak COSEC aussi presque mën naa ne soixante dix pour cent yi dañ leen dañ ko dématérialisé woon ba nga xamante ne ñoom danañ toog sa yow sa xel màcc na ci wàllu koom-koom euh, Sénégal euh, daal di nay taxawal plan de résilience boo xam ni euh, dafa caa jublu taxaw nit ñi ak koom-koom bi bala ñuy ñëw ci wàllu chargeur yi ci boobu lépp lan yow noo ko jàngatee en tant que économiste. waaw li ma ko jàngatee déjà mooy Sénégal programme bi mu defar programme bu baax la. ndax boo seetloo crise bi dafa ñëw laal mbiru wér-gu-yaram waaye laalaale mbiru nit mbiru social. mais dal également ci wàllu koom-koom ndax président Macky Sall bi affaire bi amee gis nga taxawal na programme bu mu tuddee euh, programme de résilience euh, euh, résilience économique et sociale maanaam programme boo xamante ne li dal ci kaw Sénégal nan laa koy gàttandoo ba même buy metti mu bañ a metti comme ni ko ñëpp foogee programme boobu également boo xoolee ci ñeenti pàcc la pàcc bu njëkk mooy wàllu wér-gi-yaram nga xamante ne 64 milliards dégagé nañ ko pour rien que pour xeex feebar bi ci wàllu wér yaram am ci wala woo xamante ne aussi fexe ba citoyen yi am dëgër laay mooy programme yi ngay gis ceeb yi ñuy yóbbu ak diwlin yi di ko jagleel un million de famille ñuy jàppale diaspora bi ak yooyu kooku mooy ñaareelu xaaj bi ñetteelu xaaj bi mooy lépp loo xamante ne Sénégal war na ko sécuriser war na fexe ba ñoŋal ko muy ci ñetti fànn mbiru dund nan laa koy fexe ba am ci lu doy nan laay fexe ba mbiru euh, garab ma am ci lu doy ak mbiru euh, pétrole ki euh, gaz nga xamante ne énergie la ñeenteeli pàcc bi nag mooy pàcc bi gën a am solo sax moo gën a yaatu mooy bi nga xamante ne mooy ci wàllu koom-koom te wàllu boobu sax mën naa ne bu doon téeméer boo jël rek mën naa ne euh, juróom-ñetti fukk yi foofu la ko wees euh, wér ndax programme mille milliards yi euh, huit cent milliards yi maanaam ci ci ci wàllu boobu la la la féete kon programme bu baax la ndax programme la boo xamante ne dafay jéem a dëgëral entreprise te entreprise yi mën a continuer période yi entreprise waroon fay état également fexe ba banque yi di lebal entreprise yi ci anam yoo xamante ne entreprise balaa ñuy fay dañuy fay euh, bu weesoo at la ñuy tàmbalee fay ak yeneen yoo xamante ne état jël na ko ay mesures pour gën a dëgëral entreprise kon programme bu baax la waaye nañ jàpp ne programme la boo xamante ne également ci àdduna bi yëpp dëkk bu nekk yaa ñuy wut ay pexe mm-hmm. nan ngay defaree programme yi mel noonu te dëkk yu ma bu mel ni États-Unis tey Amérique ñaar fukki millions yi doomu aadama déjà ñàkk nañ seen liggéey. Mhm. ci yeneen ci ci ndax ndax crise bi rek. Euh, te dëkk yooyu ñu ngi wut ay pexe Sénégal nag teel na jóg pour gàttandu loolu waaye nag nañu jàpp ne dina métti mais lu mu métti métti métti état bi mu ngi joué la. d' accord lanay wàll tey chargeurs yi ci boobu les plan ndax sóoraale nañ leen ci. waaw chargeurs yi sóoraale nañ leen ci ndax ñoom opérateur économique lañu. tey jii boo xoolee bu ñu nee tey jii ñëpp ñoo xamante ne état ameloon na xaalis dinañ ko fay. muy enveloppe trois cent milliards kon chargeurs yi nga xamante ne amoon nañu liggéey ak état ci ay bokk nañ ci euh, état bu ne par exemple am na dina baal ay bor euh, yi nga xamante ne ci wàllu lempo la mu toll ci deux cent milliards entreprise chargeurs yi ci lañ bokk état bu ne par exemple dinaa jël cent milliards jagleel ko entreprise yi nga xamante ne crise bi laal na leen ak doole chargeurs yi ci lañ bokk euh, beneen bi également état bu jënee deux cent milliards teg ko ci banques yi pour lebal entreprise ci anam yu yomb ba xame ba pare am euh, différé de payment d'un an maanaam atum la mu di ko toog doo te doo fay donc balaa ngay tàmbalee fay donc il faut Covid bi jeex ba mu teg at programme boobu entreprise chargé yi ci lañ bokk. Mm. donc mesures yi état jël yëpp bokk na ci mais nag li ci ëpp solo également structure yu mel ni COSEC ak yeneen structure tamit tooguñu ñu ngi jàppale chargeurs yooyu di leen accompagner seen i programme mën naa ci joxe exemple campagne ANACAR bi Ndamaras bi. nga xamante ne war na commencé mois de juin bi balaa mais juin euh, tey jii jot nañu waxtaan ak opérateur yi def euh, njaay moomu ci bitim réew muy ay sénégalais ba ñu jubóog ñoom ak waa DER dégagé benn enveloppe bu euh, ba dix milliards yoo xamante ne ko lebal pour que ñu mën a def seen i opération def nañ ci sax ay réunion ba validé nañ nan lañ ko war a doxalee donc crise bi mu ngi fii feebar bi feebar bu doy waar la mais suñu gouvernement jël na ay responsabilités pour fexe ba koom-koom gi continuer mais continuer ci anam yoo xamante ne ñu wax euh, yi nga xam ne jël nañu ko euh, ci fu mel ni marché yi ak euh, yeneen bërëbu njënd ak njaay yooyu les mesures ñi seen xam-xam màcc ci wàllu koom-koom tàmbali nañoo wax ne bu may wul dana mel lool ñi nga xam ne ñooy waa secteur informel bi te lool du ñàkk njeexital ci koom-koomu réew mi ndax yow gis-gis bu ni mel nga ci am. waaw xam nga wolof njaay dafa am lu mu wax dafa ne fu ñuy fees kenn du fa jàmbat góom. Mhm. tey jii àdduna bi yëpp crise bi laal na leen am na yoo xamante ne yemuñu ci organiser marché yi dañu tëj marché yi bokk na ci ay réewu tugal ay réewu tugal yoo xam ne dañ ne ràpp tëj marché yi Sénégal eggeegul woon niveau boobu Sénégal dafay réguler maanaam boo xoolee dañ nañ jékki-jékki ñu ne marché nañu ubbi wax sangam ba wax sangam jékki-jékki ñu ne marché bi semaine bi na jaay lii ah, wala mu jaay lële ñaari fan yële ñu tëj marché yi bu dee nag ba marché bi commencé transmission bi metti fa nag dañuy tëj marché bi pour saytuwaat affaire bi Euh, defaraat ak bi loolu dina am effectivement conséquence ci jëndkat yeeg jaaykat yooyu waaye nag jëndkat yeeg jaaykat yooyu li ñu war a xam mooy njëriñ loo fekkee njëriñ loo fekkee feebar bi am na foo bu fa toll woon tey dafa ne dañuy def la waa France def ak la États-Unis euh, ndax yenn dëkku tubaab yi def ay Espagne ak ñoom maanaam dañu naan bu kenn génn ci sa kër Sénégal eggagul foofu waaw comme egguñu foofu nag ñu ngi organiser marché yi pour fexe ba nit ñi continuer di jënd di jaay mais teg ko ci anam yoo xam ne yuy permettre ñu moytu feebar bi. sans mm-hmm. loolu dañ ko war a sant yàlla. metti na nag waaye nag euh, na ñëpp jàpp rek affaire bi moom ñëpp ci war a jàpp. Mm-hmm. ñëpp ci war a jàpp en terme de sacrifice. la nga daan def ci anam yi nga ko daan defee mënatul nekk la même chose. Mm-hmm. situation de guerre la guerre contre euh, virus boo xamante ne bët mënu koo gis. donc loolu moo tax mais xam naa ne tey jii commerçant yi comprendre nañ loolu te incha allah buñ teelee génn ci crise bi également. Euh, war na yee ci suñu marché yi nan lañ ko war a gën a organiser mm-hmm. ba mu nekk marché yoo xamante ne également dina gën a mucc ayib ci wàllu hygiène wàllu sécurité ak wàllu wér-gu-yaram kon daal su ma la déggee mesure yi ñu jot a jël fii jàpp nga ne baax na te itam dëppoo na ak euh, tolluwaay wi ñeel euh, Covid 19 ci Sénégal. waaw waaw mesure yi mesure yi vraiment mesure am solo ndax xam nga Sénégal boo mm-hmm. xoolee. Euh, tey ji dëkk bu mel ni tugal par exemple dëkk tugal yi euh, France ak Espagne ak ñoom dañ dem ba toll foo xam ne tene li taxoon feebar bi sonal leen dem nañ ba xamuñu kan moo wàllkat feebar bi ah, mooy cas communautaire yi tàmbali naa bëri sax ci Sénégal ba jaaxal voilà euh, commencé na bëri Sénégal ah. mais senegal boo xoolee mm. bu ñu détecté cas immunitaire day am enquête mm, police ñëw gendarmerie ñëw ñu reconstruire contact yi contact yi nga xamante ne contact wàllal na leen ba pare ñu def enquête xool fan la ko nañ njorte ne fan fa la ko jëlee. Hmm. liggéey boobu nag liggéey boobu mu ci suuf. liggéey ci suuf la boo xoolee cas contact yi yi ñu identifier yëpp tey jii bu ñu leen identifié woon ba perlet. Hmm. imaginal ñaata nit la ñuy wàll ñooñ ndax tey jii boo nee quatre vingt dix pour cent voire quatre pour cent yi ñu am yëpp. Hmm. ay cont ay cas contact la. effectivement waaw ñooñu nag boo leen teel woon ber yóbbu leen ci hôtel yi xool leen ba saytu leen ba gis feebar bi ci ñoom ber leen pour faj leen. kon tey jii ñooñu ñëpp wàll nañu ay nit kooku musiba naaru laay la mm. donc te loolu tugal yi erreur boobu la ñu def du ma ko tuddee erreur sax mais xëy na affaire da leen bett ñàkk xam ndax boo boo dégloo France keroog premier ministre France ba muy wax mm-hmm. assemblée nationale dafa ne désormais dinañu xool cas contact yi waaw dinañ toppaat contact yi xam nga Sénégal loolu la tàmbale mm-hmm. kon Sénégal yoon bi mu jël baax na mais nag yoon bi lu mu baax baax Euh, citoyens yi ku nekk moo war a jël responsabilité am mhm. respecté li état bi wax euh, ak li mhm. médecins yi wax mhm. loolu moo ci ëpp solo mais ci wàllu koom-koom également euh, tëjuñu suñu koom-koom comme ni ko yenn dëkku tubaab yi defee ndax ñoom affaire da ëpp doole ñun buñ demoon ba tollu niveau boobu dinañ tëj lépp mais mais nag il faut ku nekk jàpp ci ku nekk jàpp ci mooy citoyens yi ñoo war a xam ne bu ñu bëggee ñu génn rapidement ci feebar bi dañuy respecté li état bi santaane comme ça suñu médecins yi nekk ci jàmm liggéey liggéey bu am euh, boo boo xamante ne bu kii la maintenant communautaire yi commencé bëri aussi fii mhm. dal nañu waaye li ci ëpp solo rek mooy na Sénégalais bu nekk jàpp ne soldat nga ci combat bi mhm. état bi mu ngi def waru mu ngi fexe ba jàppale néew ji doole yi mu ngi jàppale entreprise yi mu ngi jàppale également képp ku yëngu ci wàllu koom-koom Eh, li ci des nag moom mooy eh, ku nekk jàpp ci rek ba yàlla coronavirus bi itam eh, du ñàkk njeexital ci programme yi nga xam ni président de la république Macky Sall ak ñi mu àndal sumboon nañu ko PSE bi ma mun ko ci tudd nga bokkoon ci ñi nga xam ni gàddu woon nañu ko xamal ko askan wi tey lu mel ni PSE ak programme liggéeyal ëllëg moom ngeen mujje taxawal ban njeexital nga yaakaar ni coronavirus mën na ko caa am. waaw PSE PSE mën na programme Sénégal émergent. plan Sénégal émergent boo xoolee euh, li ko taxaw na jóg dafa ne fii ak deux mille trente cinq xam nga tey jii ñu ngi deux mille vingt deux mille trente cinq fukki at ak juróom moo ci des mais programme bi dafa ne fii ak deux mille trente cinq nañu fexe ba am émergence émergence mooy fexe ba dëkk bi bu doon dafa nekk ci dex génn mu génnee bopp bi ci dex boobu te programme boobu biñ ko mettre en place ba léegi deux mille quatorze lañ ko mettre en place programme bi la mu indi ci wàllu koom-koom mën naa ne lépp loo jëloon benn dañ ko fulal def ko ñaar ba mu ëpp ci première phase bi donc loolu réglé nañ ko indi ndox mi ci àll bi yóbbu euh, courant bi tali yi autoroute yi yu bëri ñu def ko euh, jàppale fexe ba Sénégal daal fépp fu jigéen yoroon cour di dëbb ñu fexe indi ko machine buy transforme xam nga loolu déjà lu am solo la indi yeneen programme filets sociaux yi maintenant euh, deuxième phase du PSE bi moom lañ doon tàmbali ci deux mille dix neuf bi corona virus ñëw deuxième phase bi lan lañ président bindoon te tàmbali woon ko aussi bokk na ci industrialisation maanaam lépp lu ñu fiy defar ñu fexe ba transformer ko ba mën ko jëriñoo jëriñoo boo xamante ne euh, dina gën a euh, am valeur ajoutée dina gën a yokk koom-koomu dëkk. Mm-hmm. loolu ñu tàmbali woon ko su ma jëlee ci wàllu mbay mi euh, agropole bi ñu war a def Ziguinchor fële ci Adéane budget bi jot nañ ko ba bureau opération de suivi bi war ko mettre en place ak yeneen ak yeneen ci wàllu yu bëri donc bu moo jëlee également ci wàllu koom-koom toujours. ñu ne économie sociale et solidaire maanaam sénégalais yi yëngu di taaba taaba nan lañ leen di jàppale ñu mën a am ay financement DER ñëw commencé leen jàppale première phase bi DER trente milliards la woon mais bii ëpp na cent milliards pour mu gën a jàppale ñooñ économie numérique maanaam lépp jëm ci waay xarala yi jëm ci wàllu technologie yooyu am internet ak yooyu ak informatique programme bi président renforcé waat ko te tey jii crise bi wane na ne nit mën a toog këram di liggéey donc loolu dañ koy gën a baral Euh, mën naa daal ci gàttal plan Sénégal émergent mooy yoon bi te feebar bi daf ko gën a firndeel maintenant bu ñu feebar bi nag dafa ñëw pour perturber un peu loolu ci contexte bu gàtt hmm. muy période feebar bi bu ñu jógee nag ci feebar bi ba noppi nag plan boobu dañ koy continuer gën ko renforcer réajuster ci liñ ci war a réajuster mais yoon boobu mooy yoonu émergence du Sénégal mooy yoonu développement du Sénégal hmm. yoonu lan la yoonu liggéey transformer li ngay liggéeyee fii yoonu maîtriser ndox maîtriser courant yoonu fexe ba kom koom gi bañ a nekk ndakaaru rek mu law fépp ci Sénégal te dafa loolu le président de la République enclenché gouvernement am muy programme boo xamante ne nag li ci war a yokk nag mooy sénégalais yëpp su ma nee yëpp nag ndax bul fàtte ne président dafa tàmbali dialogue national mhm. quelques mois après crise bi ñëw président loolu la gëm waxtaan juboo fexe ba bu ñuy coow aussi mu doon coow loo xamante ne coow buy am jeexital ci dëkk bi la. Hmm. donc loolu moi je pense que loolu dañ koy renforcer dañ koy continuer bu Covid 19 bi passé. Hmm. incha allah jërëjëf Mamadou Ndione amoon nañu mbégte dalal la ci réew mi FM fàttali ni yow yaay directeur général COSEC conseil sénégalais des chargeurs. jërëjëf soxna Fatou maa ngi nuyu say auditeurs yeeg auditrices yi di nuyu également waa Rewmi FM. jërëjëf.